te pont bee dox seen diggante Vito jël na ñaari avertissement Vito trois avertissement lum sànni Vito Sa Thiès Sa Thiès am na lum sànni arbitre sifflé na diggante ñaari xale yi ak Sa mu ngi mu cokkaas di daw di génn moom Vito eh, mbay ñaari xale yi neexoon nañ ndax solxal yi may solxal te dal baax na ci moom Sa Thiès Vito Vito cokkaas daw génn Sadio direeku Cokaas daw génn Bito Sa Thiès ñaari xale yaa ngi lewtoo mbokk internet SBT Media ñu ngi leen di bégee ak wasaare eh, xeex nañ eh Sa Thiès xeex nañ ko dal xeex nañ xeex bu Arbitre téye na bopp ba wadd na arbitre soufflé na dem na ardo Sa dem na ardo Sa Thiès mooy direeku noonu di dem ardo loolu confiance lay ni loolu ginnaaw ba Sa Thiès demay ardo ñëwaat Sa dem na ardo ñëwaat Victor Jokaas na daw génn mais saa day dideeku rek eh Victor doon na benn góos saa saa xeex na saa Thiès Victor xeexu mbedd lay doon doon ma door saa Thiès Victor mbaa doon mu kaaw du am daw na jël na ko eh saa Thiès Victor arbitre àtte na leen arbitre àtte na leen. woowaat na leen ci diggi géew bi arbit woowaat na leen ci diggi géew bi da nga teel a ñëw bi Vito nee na da nga teel a jubilé na diggante Sa Thiès Vito combat spécial la ba tey xale yi bëre nañ xeex eh. Sa Thiès Vito Sa Thiès moo bëri takkaay moo ñu féete ndeyjoor daw na jël na tànk ba Sa Thiès Vito daw génn Vito daw na génn dara xewul arbitre bàyyi na leen ñu ngi bëre Sa saa am na loxo ci ngemb Vito jàppul ci kirisaal fa la jàpp saa lu mu bëgg yenu Sa Thiès lu mu yenu la bëgg wala ee eh, Sa Thiès moo ñu woon ginnaaw moo ñu kanam Sa Thiès lum naa tegal seize Vito bañ na Vito bañ na Sa Thiès Vito arbitre woowaat na leen ci diggi géew Sa Thiès ñaar xale yaa ngi ci digg géew ba tey combat spécial mooy daw noonu journée Diel production eh sa sa daw na dooraat na ko coup coup boobu dal na gauche droite ñu ngi koy wéccoo gauche droite ñeme lu metti do eh mbaa kaawoo am Sa Thiès Vito Sa Thiès Vito eh xale nañ bëre nañ bi kon sàcc doole ñoo tolloo ñoom ñaar neexoo nañ eh bi combat cokaas na daw génn ragal naa mu jeexee ko waaye arbitre bi ñim doxalee noonu la Vito Sa Thiès ba tey Vito ngi a Vito ngi ne tekk di ko déglu eh, mbay bi combat combat bi yàgg na metti na bëre leen eh, dañuy yuuxoo yuuxu ba jeexal dañuy yuuxu ba jeexal Vito eh, saa cokaas na saa doon na gauche droite Vito fay na saa daw na Vito daw na jël tànk ba bañ na saa bañ na eh Vito dugal na coup Vito Sa Thiès Vito na ñaar loxo ci ngemb waaye daan dengee ñaat Sa Thiès saa daan dengee ñaat da koy puus Vito Sa Thiès Vito am na ñaari loxo ci ngemb waaye daan de di puus Vito day bañ ndax Vito ci defet la jógee Vito Sa Thiès dugal na benn loxo bi ci ngemb li mais Sa daa jàpp ndegeñ Vito ngi sëxal put mi sigi Vito Sa Thiès arbitre na leen lu xew arbitre woowaat na leen arbitre woowaat na avertissement lamb ji jeex na jeex na Vito daan nañ ko par avertissement